sant yàlla bu baax ci biñ ko tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahim agale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin ba mën a taxaw fii ci ak waa secrétariat ci njiital sëñ Maxtar Kan taxaw itam ci responsable social yi su commission santé ci son asufal mi taxaw xam ne li ëpp ci doxin wi moo ko doon coordonné mobilisation bi nag kawe sax njort ndax xam nga 2008 ba léegi la ñuy amal journée way dawlu man naa ne depuis 2014 la ñu ci dugal don de sang depuis 2014 lañ ci dugal sur journée bi ñu dugal ci don de sang ngir bàyyi xel ni képp kuy taxaw ki faatu di ko ñaanal war ngaa mën a taxaw kiy dund ci amay jafe-jafe ba mu bañ a faatu wala ba waxtu wi nga xamante bii ni jafe-jafe deret rek moo ko téye suñu borom yaa mën ko ca yëkkati moo tax ñu ne kon nañ ci boole waale doole 100 2014 boobu ba fi mu ne ci lañ amoon benn calendrier boo xam ni lépp luy genre wala lépp luy doole 100 wala lépp luy groupe foofu lañ ko capitaliser def ko fa son asfal mii ko jiite day am ay cas yu laaj 100 ca hôpital bi yu bare bare bari xam ngeen ni yàggul ci biir weer wi rek am na ñaari cas wala ñetti cas yoo xam bi hopital lañ newoon soxla woon deret mu mobiliser li ëppoon ci mbooloo mi ñu dem foofu noona maye woon fa dara ngir sawe malade yooyu noonu ndax dañuy xam groupe yi nga xam ni groupe yi nga xam ne ñoom lañ soxla bu kenn amee jafe-jafe dañuy compte ubbi banque de données bi rek xool yan nit ñoo fa war a dem maye ji ñu sélectionné ñoo ñu dem maye ji loola feeñ na ci waaye teewul bi ñu waxee ni daayira bone na indi juróomi nit respecté buñ ko respecté tax na fi mu toog léegi am nañ quatre postes juróom-ñett fukki nit maye nañ ci jamono bi ma taxaw ne ci am na ñeneen ñoo xamante bi ni ñu ngi ko ne ragal naa ne balaa ñoo tollu ci di tëj danañ am 90. bés bu ne ci hôpital bi gis nañu ñoo xamee ni ñu ngi jànkoonteeg wàllum maye deret ñu mel na jigéen ñu wéru ñi nga xamee ni léeg-léeg ñu xëpp deret ju bëri bu ñuy am doom wala léeg ñu tase ñi nga xamee ni dañoo am accident xëpp deret ju bare ñu moo leen may deret wala ñi nga xamee ni dañu am jafe-jafe muy anémie sévère yi wala ñi nga xamee ni wàllum jalis tamit dañ ko soxla pour ñu may leen deret te deret gis nañu ne kenn du ko defar nit doomu aadama mooy ñëw may doomu aadama am te yàlla tax ñu mën jël deret jooju saytu ko ba xam ne amul benn jàngoro ñu doog ko maye. kon nag bu ñu gisee tey waa wilaya organiser lu mel nii nga xam ne association la boo xam ni yàgg nañ ci jàpp ci wàllu maye deret bi ñu leen di sant bu baax. ndax saa yi ñu jaaxle bokk na si ñi nga xam ne ni ñoom la ñoo ñu dolli dolli deret may ñu deret ñu mën a dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla deret ci hôpital bi. ndax saa yi ñu soxlaa di tubaab bi di wax quand le besoin se fait sentir bu ñu soxlaa rek ñoom saa yi ñu leen woowee ñu taxaw fekk suñu si nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg saa yi ñu amee jafe-jafe deret bu amee rupture manquement ñoom bu leen woowee wax leen ko. dinañ def seen kéemtalaay kattan ba taxaw lijjanti dara jooju nga xam moom lañ soxla ñu mën ko dox ñi nga xam ne ni moom lañ ko moom lañ ko yitteel nga xam ne ñoo nekk ci hôpital bi war ko soxla. maanaam waa wilaay ñoom lii mën naa wax ni loo xamee ni seen baaxantal la at mu jot dañ koy jaarale ci waay ñaan waay dawlu yi nga xam ni bés bi bu jotee rek ñun ci wàllu bopp dinañu fexe ba waxtaan ba juboo ba xam bés ba ñu waajal ko ñëw. xool ñu ci mën a mën a ñëw wut si deret ju ñu mën a am ñu jël ko doo ko yóbbu ci opitaal bi donc loo xamee ni lu yàgg la du programme du dara mais at mu jot daal bu bés bi yegsee rek ñu àndandoo ñoom liggéey ko ba mu rafet lépp luñ ci mën a am ñu jël ko yóbbuwaat ko ci hôpital bi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla deret ñu may leen ko. daan nañu dem ci yenn collecte léeg ñoo am fa lu tolloo ci ñaar fukki poos waaye waa wilaay ñoom li ñuy wax naan constante. mooy maanaam saa ñu ñëwee rek lu ñu soxla rek ñoom dinañ ko jox kon nag loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax moo tax mu ñoom ñu bokk si ñi nga xam ne ni dañuy wax naan partenaire ñoom dañu bokk suñu partenaire